mina sheytaan rajim rabbi aouzu bika min hamazati shayaatiin wa aouzu bika rabbi yahduruuni bismillahi rahmaani rahim barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall babul muridin barkeb Sëriñ Tuubaa jamaatali maa lam yakun wala yakun li mumkinin yaa man law kun fa yakun jamaatali maa lam yakun wala yakun لممكن يا من لو كن فيكون جمعت لي ما لم يكن ولا يكون لممكن يا من لو كن فيكون ملكني أنت الملك والملك ما لم يكن لملك أو لملك فقيتني للجنان علمي يا خيبك يا من خاد لي خير حياة شكرتني عند جميع جندك يا خير جار خدمك سهندك إذا كتبت تزارش الباقي وصبحت ملائك تباخي إذا كتبته تزارش الباخي إذا كتبته تزارش الباخي وصبحت ملائكة باخي لسان ذكري وشكري رافقا للعرش والكرسي نورا وافقا لبي منور بنور الوحي وقاد لي خير الهلوم المهي لبي منور بنور الوحي وقاد لي خير العلوم المحيي النحو والعروض والبيان لي سلبت ولي بأيان هرب من كتابة المدهور وبهروفي تتغنى الهور هرب من كتابة المدهور وبحروفي تتغنى وصلى الله تعالى على سيدنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه wa sallama tasliman ayasaminillahu hinda jeewali hinda jeewali iblisa isnadaytuhu bi ya wali nafa li xayrillahu qablu findari bi ahli badrin al usoodi kadari nafa li xayrillahu fi ndakaaru fi ndakaaru fi ndakaaru ku laasan lii jërëwul makaaru halla mani rahmaanu fi safina bi annani alxadimu zil madina baraani laahu ladaku naakiri من كل جالب إلى المناكر أزبان الله في كرم بسا قبل مبارزي وهني خلبسا دهاني الرحيم عند دومي له بما أغنى عن التزوم يسر للمنى لدى لبرولي man xaada lii maa xaaba han kulli wali lii xaada ahla badrinil usuuda man zaxzaxal waasiya wal suuda yaquudu lii haysu akuunu lahu tafsiira laa ilaaha illa allahu saxali xayri allahu saaxa li xayri laahu saaxa li xayri laahu fii maa yomba ma saa qalbi wa ahlal janba lillahi qad wasaltu inda galwa wasalani ma yajurru lbalwa kitaabati xablu ladal buhuuri kafat hayaatihi yalal madhuuri hallamani lhalimu inda saaxira مما يشاء وكفى الكافرات علمني الحليم عند الذاكرات مما يشاء وكفى الكافرات لم ينهني عند البحور المغرقات داع لخمر أو دواء فاسخات يسر للجميل عند المولكات ما سانني عن جالب للمشركات هبات من لي كان عند الواسحات خاد لك الكل ردا وساتحات مد لي الأنوار عند الظلمات وظالمين من كفاني صدمات سعادتي عند الإله إلهي لي زهرت عند ذوي الملاهي لم ينهني عند ذوي الخمور siwaari daa baaxi umuuri taharani laahu ladaa ahlil kitaab min ashaqaawati wa min kulli itaab akramani hinda zawil israaki man xadani ilayhi bil idraaki naajaytuhu bi yaa nasiru yaa wali kafaytani iblisa hinda jeewali li dale fii jàll kenn mësula gis ku mel ne maam Cheikh Ibra ba seeni maam Bamba ko sempi def mu raw li dale fii jàll ba saam kenn mësula gis ku mel ne maam Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh ba seeni maam bamba ko sempi def moo raw maandul ci moom yow mi nitu xel te bul di ko jéem a natte xel kii raw na bët te raw naa xel xam-xam xamul li tax mu raw Cheikh Ibrahima Fall yëg-yëg la Cheikh Ibrahima Fall yëg-yëg la Cheikh Ibrahima Fall yëg-yëg la Cheikh Ibrahima Fall yëg-yëg la buur yàlla koy dugal ci xolu ji mu bëggal aljanna fegal ko mbugal yowmal xiyaam bisu ko caw Cheikh Ibrahima Fall baabul muridin yëg-yëg la Cheikh Ibrahima Fall baabul muridin yëg-yëg la buur yàlla koy dugal yëg-yëg la buur yàlla koy dugal ci xol waa ji mu bëggal aljanna fegal ko mbugal yowmal xiyaam desu ko caw xalaasa yow mi ko yëgul mu te ngaa ñaan buur mu dugal leeram bu rëy gii ci sa xol billahi jaa kon de nga raw du rëy sabab nga foñ ko ndax rëyee ki tax iblis sërëx jahannama ma ngay bërëx moo te ngaa teel a yow yow wattul kañaan ca teel yow wattul kañaan ca teel yow mbaalu ko mooy des na la caw wullil sa xol bi nga la yow wullil sa xol bi nga la yow te def caa lamp ndax nga raw bu jàngatee ni moo la raw maam yaay dameel yo jiite woon mu teg fa lépp wan nu gën te ñu ci yoon wi tax mu raw Cheikh Ibrahima Fall baabul yi jaay ko cëriñ du puukare ngir maam ya ñoo sancoon njare te mës la jëf lu nuy tere ku yàlla waa waajal yow nga raw Cheikh Ibrahima Fall baabul muridin jaay koog cëriñ du puukare ngir maam ya ñoo sancoon njare te mës la jëf lu nuy tere ku yàlla waajal yow nga raw waa njare ñàng ganu amoon leeram gu rëy gën bu woon fa seen deret rekk a taxoon ku nammatee ñàng nu ñëw Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall waa njare ñàng ganu amoon leeram gu rëy gën a bu woon fa seen deret rekk a taxoon bu jàngatee ni moo la raw bu jàngatee ni moo la raw maam yaay dammeel ya jiite woon mu teg fa lépp wan nu gën teg nu ci yoon mi tax nu raw Cheikh Ibrahima Fall bu jàngatee ni moo la raw mbooleem rijaal yi moo ci raw moo féete góor ñëpp fa kaw moo te ngaa yër gës boom ba yow Cheikh Ibrahima Fall bu jàng teeni moo la raw mbooleem rijaal yi moo bu jàng teeni moo la raw mbooleem rijaal yi moo ci raw moo féete góor ñëpp fa kaw moo tee ngaa yër gës boom ba yow bu jàng teeni moo la raw mbooleem rijaal yi moo ci raw moo féete góor ñëpp fa kaw moo tee ngaa yër jës boom ba yow lu jiitu muy gis ki ko moom fekkoon na lamp daj boroom bam naa ko ma doola moom wuy ji ko xàll yoonu raw kon lamp doonul woon ku réer ngir waaju réer du daji leer lampay ki xuus ci géej ji leer génnaale mbóot yi na ci raw cheikh ibrahima faal da daa fanaane di taxawu ci der bu ñëpp nee daa julli fonkul woon nelawu kii mus la jóg kii xencu raw bu daa taxaw ba jot fajar ruu yëpp ak si newesar fa kanamam te naa ko far fu dee si xaw ba mën a raw mu naa leen garab bu la sutul gi naan yéen du la keral te buur bi jox na ma ndigal ci xencu mbër may tax nu raw daa dina ñokke jóg ndi war a gën malayka naa ku njëkk gën njëkk a jëf li tax nu gën booba la bis la lampu raw jaaraama Cheikh Ibrahima Fall jaaraama Cheikh Ibrahima Fall jaaraama Cheikh Ibrahima Fall jaaraama Cheikh lamp bi Cheikh Bamba taal leeral nga réew mi yaay kamaal yàlla na nga dolli bira ma wax la bis ba mu gisee xaadim wallaayi kon nga dellu yéen Cheikh Ibrahima Fall ma mbër ma yéem tey xencu mbiram ndax nga raw ma wax la ba mu gisee xaadim wallaahi kon nga dellu yéen Cheikh Ibrahima Fall ma mbër ma yéem tey xencu mbiram ndax nga raw lam waxat donoy rasuul jàjj na xol bu gëm rasuul muhammadan ngendi rasul boobale bis la lampu raw lampa nga naa kama di seet kum soob ca leeram nga set loo taq-taq dal di set jum gërëm nga dal di raw lampa nga naa sëriñ bi may seet sëriñ bi daj yàlla la ku yegg te yeggala la ku yor texe mbindiif yi la waaju ko topp daldi raw te naa ko tànkub saa boroom te naa ko tànkub saa boroom moo fekk fi yow kon yaa moom yow mi la yow la sunu boroom si dénganeel yi na ci raw su ma gisul woon sa jëmmit te gis sa raw datu bayit danaa fa teew xol bu set ba samp ngir may tax nu raw su ma gisul woon su ma gisul woon sa jëmit te gis sa raw datu bayit danaa fa teewa xol bu set ba samp ngir may tax nu raw ndéem asamaan daana tiim weer weer biddiwi daa la tiim sihaabu wa samsu daa la tiim ma teewloo xal yoonu raw xanaa kilee yoonu murit xanaa ki yoonu murit gërëm ko war na kuy murit ngir moonu wan nu dig murit ngir moonu wan nu dig murit xamal nu melaw ya tax mu raw cheikh ibrahima faal baabul muridin cheikh ibrahima faal baabul muridin ku soxorul xam nga ni kii mooy yoon wi teenu sant gi ngir moonu wan ahmadu mbàkke xamal nu nees kuy wax ni daa doonu murit te du ko roy du ab murit ngir làmp mooy baabul murit ku fa mën a raw kuy wax ni daa doonu murit te du ko roy du ab murit ngir làmp mooy baabul murit ngir làmp mooy baabul murit ku fa xawul du mën a raw xawal ci yoon yow mii di dem ndéem bëgguloo dajeeg ngëlëm kon yow mi jóg di wut ngërëm yoon waa ngi nii topp ko yow xawal ci yoon yow mii di dem ndéem bëgguloo dajeeg ngëlëm kon yow mi jóg di wut ngërëm yoon waa ngi nii topp ko yow Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin bu Bamba deew yoon fu mu jëm xel mu doful du ko xalam bàmba di péey mu di ngiram waaju ca soobu daal di raw cheikh ibrahima faal cheikh ibrahima faal faal xat fuxta rijaal cheikh ibra faal xat ju sëlma jaal ibra faal إنك الكمال وصلت حقا لذي الجلال إبراهيم فال لم يزل يهتر الرقاب في الأزل حتى سبقت في الكمال ما في سبقك الأثر من رام مثلك عجز فلا يراه في المجز ذلك وهم قد نجز شرواك ليس في البشر خدمت أحمد الخديم خدمت أحمد الخديم بإذن ربك الخديم شيخك نور من خديم من شك فيه قد خسر يدخل في النار الجحيم الجحيم ثم تيسقى في الحميم سلاسل مع زقوم نعوذ من ذلك الشرر مرزق في إبراهيم فال مرزق في إبراهيم فال وفي تاريخه الكمال إن لم يكتب لذي الجلال yara azaban qad nukur tariquhu xayru turuq salikuhu kafal xaraq xadan yakunu kalbaraq inda zdihamin fil jasar shariatul mutahara xaqiqatul munawara fa kullu za qad arafa walam yakun mustaamila shariatun mahsuma haqiqatun mahsuma wa laysa min xusuma fi hada alxawli alagar salaka fi lxaqiqa tahiratan naqiya wa indahu wasila wa zaka ahmadul abar haqiqatul munawara haqiqatul munawara fi lawhin mahfuzin sabata shariatul mutahara fi lkutubil munazala ya man yashukku fi tariq ibrahima fa nashafiq yaa man yasiq fii tariq Ibrahima Fall Ibrahima Fall Ibrahima Fall Ibrahima Fall nashafiq fatu bila rabbil badi maati wa sakar in lam yattub fi lazmin yuxazu bi naasiya yaslukuhu fi zabaniya muxalladan muazaba auzu billahi alazim min charri maqtin walmulim wa charri cheytani rajim huna wa fi gadin amin summa salatu rabbina ala allazi yashfauna muhammadin xaayidina ila najati wannaim ila allah maam Cheikh Ibra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 bamba riir daa bay maam Seynabu Njaay jaaraama maam Cheikh jaaraama maam Cheikh jaaraama maam Cheikh Ibra Faal faali du neen faal yàlla laay cey yàlla bu doon neen faal cey bu doon neen faal bi sore asalaamaaleykum mbokk taalibe yi maa ngi siyaar bu baax dana àggale si kër bi daa am lu ma bëgg a fàttali rek te di ko soññee ngir jëmmi Cheikh Ibrahima Fall te lépp jëm ci sang bi damay ñaan ci dara ji Serigne Touba njabootam gu tedd gii ne fi ñëw te jëmi Cheikh Ibrahima Fall rek tax maa ngi ñaan képp koo xam si jóg nga ñu dajal leen àddi yi juñ leen jox fii maa ngi ñaan képp ku ko def yàlla na Cheikh Ibrahima Fall faj sa aaju ci bis bi saahir ak baatin maa ngi ñaan ñu yëkkati àddi yi Serigne Touba dajaleel ko njabootu Cheikh Ibrahima Fall gii ñëw te bisu Cheikh Ibrahima bi rek tax maa ngi ñaan képp koo xam ne bégal nga leen wallahi alazim maa ngi ñaan ci daraji Cheikh Ibrahima yàlla na Cheikh Ibrahima Fall faj say aaju saahir ak batin maa ngi koy ñaan ci daraji Cheikh Ibrahima Fall fii nga toll ku fa toll loo ñaan maam Cheikh Ibrahima Fall may la ko ñii nii nag ñëpp njabootam gii ngay laajal addiya war na yow mi koy jàngit war nañ laa laajal addiya képp koo xam ne nag ñi ngi lay ñaan def nga ci saw ñaq yàlla boo tàggatoo ko ab dërëm ci barke Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ñëpp góor ñeeg jigéen ñi ñëpp la ñu woo billaahi képp koo xam ne yàlla dogal na def nga ci jox nga caadi yi ji du doo ko ñàkk mukk sëñ Mor jërëjëf maa ngi sàkku ñëpp ñëw na ñëpp ñëw njabootu seex Ibrahima Fall gii dañoo war a bëgg ndax bis bi ñoo tax kuñ fiy jox ñoo ko gën a yelloo maa ngi ñan ci barke Cheikh Ibrahima Fall képp ku ci tàbb yàlla na Cheikh Ibrahima faj sa aajo saa yir ak barke Xaadim Rasuul wax baax na bismillah sang yi barkeb Seex Ibrahima Fall allahumma am Seex Ibra Fall la ilaha la ilaha illallah laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu maam Cheikh Ibra fa laa ilaha illa allahu ca yàlla lii du neen faal yàlla laa cey bu doon neen faal cey bu doon neen faal cey bu doon faal du sorey noo ngi ñaan faal dellu ñaan Cheikh Moustapha Fall Cheikh Moustapha Fall Cheikh Moustapha Fall Cheikh Moustapha Fall yàgg fee ngi ñaan faal dellu ñaan cheikh jëmma faal cheikh jëmma faal cheikh jëmma faal mi yàgg feey noo ngi ñaan faal dellu ñaan cheikh muntaxa mbàkke cheikh muntaxa mbàkke cheikh muntaxa mbàkke cheikh muntaxa mbàkke yàgg feey tey noo ngi dellu ñaan Cheikh Sidi Muxtaar Mbakke Cheikh Sidi Muxtaar Mbakke Cheikh Sidi Muxtaar Mbakke yàgg fee Sëriñ Saaliwu jëlu na jànq naa gont naa yokku dox na ci mbuuya fande na ngir jot mébétam sëriñ saaliw mbakke sëriñ saaliw mbakke sëriñ saaliw mbakke sëriñ saaliw mbakke bismillaahi maa ngi leen di jaale jawrinu cheikh bamba borom kamaali moo fi desoon ci doomi Seexu Bamba buur yàlla jël ko mu fekki Bamba ca yàlla jël na jël na jël baayu soxna waalo ca yàlla jël na baayu soxna waalo woy Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké way fu ñu jëm cay fu jëm xawma ko man tey ku xam fu jëm nang ma ko wax man moo fi ne woon xalifatul ilaahi moo doon xaadim rasulullah yi moo yeesalaat tariqatul murid yi ba ñëpp xam murid yi xam marid yi moo dalaloon xel yi ba ñëpp jaxle waaye de tey ji xol yëpp bég na ci loolu Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké cey Mbacké balla yaa matal liggéey bi xutbu zamaan bi yaa fi roy yonen bi kay Mbàkke Balla Mbàkke Balla Mbàkke Balla yaa mata liggéey bi xutbu zamaan bi yaa fi roy yonen bi liggéey bi mat na bi mat na bi mat xol yëpp bég waaye sa dem gi tax na tax na xol yëpp dee sëriñ saaliwu mbakke sëriñ saaliwu mbakke xëy na ci yàlla xëy mu teel ci naaj wu tàng ak xiin wu ñuul du tax mu naa fajar gu teel laa xëy si woon naa wàcc dem sëriñ saaliw muñ na muñ na muñ na muñ na muñ na muñ na muñ na muñ na muñ na muñ na ba jot ci mébétam te kenn mus la dégg njàmbatam nattu lu wex wex mu gërëm day mel ne kuy wanaasu lem sëriñ saaliw mbakke sëriñ saaliw mbakke ñëw na ba dem te yàqu fii te kenn du wax ne yàggu fii taw féex ju la dunde fii setal naa wecc aw sasam sa wa yonen ba toppi woon sëriñ bamba man ca góor ña woon def nga ca lool ka digle woon nee na la jàpp ngërëmam lin xaadatil ujuru wal masaaliwu bi tey wal jës bi wa inni saaliwu addi sëriñ Tuuba maa ngi tuub tey jéggalu sama jëwriñ daa war a tàmbali léegi muy sëriñ Saalihu sekk ñoo ngi jéggalu bu baax a baax ci njàng mu xaw a gàtt mi ñoo ngi koy tuub bu baax barke sëriñ Tuuba